salaamaaleykum sama gars yi salaamaaleykum Ahmed Temps moo yor micro bi ngi biir université Cheikh Anta Diop fasiyene jakarlo wa cité bi pose len question ba xam fidèle nañ wala fidèle des fois ma jël sen téléphone ne leen ubbi leen ko ma dem galerie exact xool lan mo fa nek dina am ñuma ma dina am ñuma ma dina am ñu am confiance dina am ñu am confiance kon bokki yi nañ dem ñu gis ngeen abonné nak bu len fàtte sen YouTube bi Bécayeuse Pro abonné len c'est Ahmed qui vous parle dëgg la mën nga jakarlo sama caméra nga wàcc yalla ne fidèle <laughs> <laughs> Ya, ah. <laughs> No, no. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Mas, ele não tinha cara, só que eu não vou nem virar. Não, não, não, é impossível, cara. Ah, mas de jom na. Mama ya. No, me dul. Fale ka mo ko paske degré la wax. Ñaara gel nga. Ah. Non non, say mo mul mo. Mais puisque ñëmé wo taxaw jaxal sama caméra wat ne da nga fi da li. Ñaara gel nga. Non, mul ma xam. parce que dañoo bëri tellement que bon mënuma leen a compter quoi. tey laa gis ku ma ëpp fit ku ma gëpp fit ci kaw suuf. kan nga. xam dañoo bëri trop. waaw Samba. dañoo bëri de. man mi nga xam ne benn sax mënuma ko am yow nga déglu lu bëri. déglu li xam benn yow état kee rombal nga <laughs> rombal nga benn moom. nii de yéen a ko gisandoo. moom nangu ne moom infidélité moom nangu na ko moom man kii dama ko bëgg. moom laa gis seul góor boo xamante ne moo ñemee taxaw nangu infidélité am. non ba xwa gor way jambar jàmbaar. ñemewul jakarlo caméra bi watne dafa fi dal parce que dafa bari gel. di nga wax moy deug yow jappal na yow bo ñibé zéro sax doo ko <laughs> yow mom ko sérieux nga meen duro ah, ah bon. Samba am nga gel. man waaw. waaw am na gel. xwa gor way jambar ñeme nga jakarlo sama caméra nga wat ci yalla na ben gel nga man waaw. <laughs> nan la Ganya buaro, ganya ganya buaro, Boiro. Janga buaro ganya, ganya Gagna Boiro. Ah serer la. Moma jaaxal. Non pol la. Serer ñoy tour yu nexé non. Ko pol la dé. Ganya, ganya, Gagna. OK, kañ nga ko mujjé Bon lendemain korité bi. Lendemain korité. Yeah. Ba après li ñaan après koor gi réew dana daanu ba daanal ngeen ko lendemain korité. Dé waay dé. Non bon dañ doon communiquer gisante wala. waaw mais elle elle n'est pas là pour le moment. elle est où. ok yow koy woowee. man bon euh, la princesse. la princesse. <laughs> Ah, la princesse. waay waay bu la meree noo koy neexalee. ah bon xam naa am na ay points yoo xam ne fu may jaar. fooy jaar waaw sax di nga ko feccal. oui effectivement moom. bu dee léeb nga léebal ko rien que pour mu kontaan. waay waay man yi bëgg naa ci yow góor day jonge du jigéen dong moo war a jonge dégg nga. <laughs> yow de àddina yow la ñuy waxtaanee fi mu boo bon Khadija ma amoon envie poser la benn question bu ndaw gis naa que ni yow man am naa confiance ci yow ku la xam ne yow jigéen bu fidèle nga loolu werante wu ma ci. dëgg nga jàkkaarloo sama caméra nga waat ni da ngaa fidèle Khadija. dee <laughs> waay dee. <laughs> man ama sa far. nga sa mantane. mantane. daa ne. mune ne. far ama far. inna lazina amanu. xarit sax ki nga génnul bu gisee bu la gisee fi moy loolu non après de. ama far damay célibataire. depuis kañ. yagna mais amone nga quoi. na dama tanga bayante non c'est compliqué. oh. compliqué. ok léegi meun nga tijji sa téléphone jox ma ma dem galerie xol lu fa nek ah wa ay wa yéen wol nga sa bop de. <laughs> man daal maa bëgg xarit deggal kay neena mo dem SMS <laughs> daa dem galerie ba ah yow tiju <laughs> wa Xadija. oui. amo copain. dedet amuma. sa ak yalla génn kenn. dedet wala sa ex bi mom nga nopp tay ni nii ñaar yena nek ni dañu fa demee noonu. ma moy sama ex. <laughs> ah. mo woon ko caméra bi. wan ko. non li wour parce que vidéo bi ni gis na ni nga ko collé ni dafa graw dal bëgguma paré ma am problème ci sama site bi mais dara damay roubé dara nek fi machallah gis na ke ni ki yaakaar naa sa mam ah, la. sa mam la sa ah, ah tarkala machallah allah. yéen saraxule yi ku leen xam-xam leen ci fidèle. Mhm. fidèle mom tarkala machallah mhm. mën nga jakarou sama caméra nga wàcc ci yàlla ne da nga fidèle ben gel nga <laughs> man wa actuellement ni mom eh. actuellement man lay wax wax de. mën nga jakarou sama caméra nga wat ne da nga fidèle. wa actuellement je suis fidèle. Eh, waata. non wa billaay actuellement je suis fidèle quoi. da nga fidèle. non bàyyi naa lépp quoi actuellement benn rek laa yem quoi. sa gel nu mu tudd voilà. sama gel da nga fidèle kañ moom di nga ne lu tudd. moom bu setaanee xam ne moom la tudd rek. léegi am yëpp ku nekk ne moom la. non moom rek la bébé rek la moom rek laay woo bébé quoi. non wax ñu turam ku gis ku ah? ah. sama gel la tudd naa nii la sant fee la dëkk. li nga wax mooy dëgg. moom mu moom mu gën a fier ci yow gën la jàpp. Ah. bon Oh, asal lo asalo Asal, asal lo, asal bombe, asal butuh <laughs> butuh butuh enggak ya Saya nggak mau yang lol asal. Asal, ah, asal lo dulu. tar asal masalah. Asa japal bu baax. Ku serieux nga may nduru nak. Ñame nga jakarlu sama kamera nga wacc yalla ni da nga fidèle. fidel fidèle par rapport ak lan. Ben copine nga. Non, duma duduk Ah? Non, duma doxaan. Bi waay bi. Do non lu ma dox. mantane. mantane. ah vidéo bi sa gel bu ko gisee ki nga nekkal nii di ko nëbb dina la bàyyi de. non même pas <laughs> xam na ni ma nekkuma ak kenn en mais nekkoon nga ak kenn. nekkoon naa kenn non loolu affaire de temps booy la maintenant ay mag lañu xam nga rek. léegi kenn kenn. ok pour ngeen gisan ñu gisandoo ko moom nee na nekkut ak kenn kenn kenn bu fekkee rek daam ku muy nekkal te mu nar a jot ci vidéo bi na ko bàyyi. ferme batu. Abi batu. bu rafet ni tour bi rafetee non la rafetee tarka la machallah allah Abibatu mën nga jakarlo sama caméra nga wat ci yalla ne da nga wow bo dé fi delo da sa comment dina ko gis taxawal baa eh, <laughs> eh, mu sedd ok Abibatu Batu, batay mën nga japp ne ci del nak fi delul fofu lañ tollu so si mën nga ñu no tuddu man Anta ante nga tudd kan ma sha Allah. ak pat de mom sa xarit bi copine bi hmm. nanguuta jàkkaarloo caméra bi wat ne fidèle hmm. na de xamna naa ne yow di nga ñu sigil yow bo ñu sigilut bo demee kenn du xam la ngay wax koñ ba mën nga jàkkaarloo sama caméra nga wat ne da nga fidèle waaw je suis fidèle waata billahi <laughs> hmm. ah billahi billahi da nga fidèle léegi ki ngay génnal na la tud duma ko wax ah puisque da nga fidèle waxal tur. non du ma ko wax. imagine toi nga ne da ngaa fidèle nii rek bu fekkee cinq far nga am mais imagine toi nga am cinq far ku nekk fëgg dënam ne sama gel ba cinq far xam naa ko. nan la tudd. du ma ko wax ñu sant. c'est privé. macha allah da koo jar. ah ok bañ na loolu. ça va. madame moo koy wooni sax ñu xaar mu pare. en forme. waa man ak Amina ñoo nekk nii sax de maa ngi koy gérer quoi. Ah. waa ñëw na waa. Hmm. madame num tuddu sax da hmm? wax turu madame madame Ndiaye madame Ndiaye ah, moy wax ak yow ni waaw moy wax ak man waaw d'abord nga tuddu no tuddu nga def ça va pap abdullah tuddu papa abdou madame mo don woni beug nga ko lol trop trop trop trop trop mën nga jakarlo sama caméra nga nih ni fidèle nga wallahi lazim ko fidèle la hmm? ça c'est extraordinaire nu madame Ndiaye nu mu tudd. madame Ndiaye. yow Ndiaye nga <laughs> waaw alors que boo ne madame Ndiaye. képp koo nekkal bu fekkoon am nga cinq gel ñëpp dañuy yàpp ne ñoom ngay wax. ki ngay nekkal nii nii nee nga waat nga ne da nga fidèle. waxal moom moom mooy dégg. mais moom mais waxal turam. non moom mooy dégg madame Ndiaye rek. fu mu dëkk. Euh, ndànd la dëkk. te nee nee na ñeme na waat ne dafa fidèle. waaw wax ñu turu ki la doon woo. madame Ndiaye kay jeexal ne wax. bu ne madame Ndiaye bu fekkee cinq gel laam ñëpp dañuy jàpp ne ñoom la parce que santam la Ndiaye. waaw madame Ndiaye la rek. ah comme mu sedd. nañ bàyyi mu sedd. léegi mën nañ ñu def benn jeu bu ndaw. nga tijji sa téléphone dugg galerie jox ma ma dugg xool la fa lu fa ne. galerie sama galerie man maa fa nekk ak ma femme. dama wóoru ma de. ah très sérieux mun naa la woon sax. Ah, loolu du dugal ma xool. Euh, loolu du problème. ban ban média ngeen sax yow duggal rek bañ pare. ban média ngeen sax. bu la neexee ne Bécayeuse. pro pro. Mhm. non man bul ma woon photo de galerie ngay dugg bul ma woon photo maanaam kese bul ma woon photo maanaam. ah moom monsieur ak madame. waa génnal bàyyi ma xool monsieur ak madame ma ngi noonu. bi gis naa ni moom nga kottantel nii. waaw. moom moo may ci ma ci bind. moom moom nga ci bind. ah moi. numéro bi këru naa ko gis naa ko de. garaawul. waxal nu mu tudd. allo alo waaw d'accord maa ngi koy geere léegi gars yi ñoo may alo madame noo tudd. wuyul. allo. si na def. yaa ngi si jàmm. Euh, ñun de benn site lañ BKS Pro. Hmm. ñoo doon wax ak sa sa alaaji nii warloon naa ko ci caméra bi tiim na caméra bi war na leen ne dafa fidèle. Hmm. waaw laaj naa ko nag noo tudd. waaw nee na madame Ndiaye nga tudd gis naa loxo yee ngi lox nag moo tax jotumaa yeggali <laughs> nanguwul wax sa tur benn yoon nag ah, a ah, léegi yow yow yow nag yow nag yow xanaa fay nga sant bu ne la madame Ndiaye léegi moom bu ne la madame Ndiaye fekk mu am cinq gel ñëpp dañuy jàpp ne moom la wax léegi na wax sa tur mu fësal ko ci caméra bi ñëpp gis ko ah amul wóolu nga <laughs> waaw baxna man de la ko fek mu tok ah. <laughs> ni te am ko mu eh. togal dedet ki tek sa bam wacce ko ba ca fesse ah jëlal ma ko. cameraman wa baxna na jërëjëf jappal ba mu wa ok damay roubé rek dégg nga. may bañ après nga wote rek tangal day roubé quoi. ok jërëjëf. ñoo ñoko gissono sama gaay yi ba tey fii ci biir université Cheikh anto Diop li ngay ni ré la <laughs> ré dama contane maa ni nii nak ñom ñoom posé naa leen question xamna ñan ñoo ak ñu ah wa man sama waja tok ci ban banc ba kooku mën na ma daaji tarkalla sha allah batay bu len faté abonné ci sen euh, YouTube bekayeuse Pro c'est un temps qui vous parle deug